asalaamaaleykum wa rahmatullah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haq qadri miqdaaril azim euh, man la El Hadj Omar responsable politique bokk ci CREM Medina Baye yu jàppale demb bi Bitèye ci biir Benno Bokk Yaakaar maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di nuyu sunu xalifa sunu papa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass di ko ziyaare di ko ndokkeel di ko ñaanal jàmm ak sutura ak wér di ñaanal sunu imaamu akbar Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé yàlla may ko wér ak fan gudd di ñaanal di ziyaara di ndokkeel sunu imaam euh, sunu porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Aliou Cissé di nuy waa Kaolack yépp di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal julli tabaski ak jàmm di wax tuuti rek ci li nga xam ne moo fi xew ci jamono bii passé mois de juin bi muy lu lu lu lu tiis lu raglu lu bette lu jaaxal waa Sénégal ndax xamuñu ko woon xamuñu woon lu mel noonu ndaxte eh, ni mu demee ak liñ ci gis dafa raglu te dafa tey xel li tax ma ne dafa tey xel dafa niroo trop ak euh, fii Boko Haram débuté ak yeneen kuréel yooyu fi ñu débuté dafa xaw a niroo ak moom trop trop trop trop trop ndax ñun euh, suñ defee sunu gëstu bi ñu defee sunu gëstu ak li ñu xam expérience bi ñu am euh, Boko Haram mu ngi dugg Nigéria 1978 la dugg Nigéria ah mi nga fa duggee woon diine te nam fa duggee commencement bi mooy tabax seeni jàkkay bopp ak seeni heure yu julli bopp di ŋàññi mag ñi di xas tarixa yi di sabote tarixa yi di saaga mag ñi loolu lañ fa duggee 1981 ñi créé fa buru bu mag xeex bu mag ay junney junney nit faatu ci ba gouvernement bi ba gouvernement Nigéria jóg ci faagaagal leen ba rey seen njiit ba ñu commencé waat ba amaat doole 1987 ñu jógaat toujours dañuy changer système di génn di dem di ñëw ba mu gi ñu tuddee seen bopp Boko Haram Boko Haram ci langue Hausa mooy école Occident dafa haram loolu lay firi ci olof Boko Haram mooy école Occident dafa haram moo tax ma ne dafa niroo ak li xew fi mois de juin dem ci université fi ñuy tàggatee borom xam-xam yi ñu taal ko. kon ñoom bëgguñu xam-xam bëgguñu xam bi nga xam ne moom la Sénégal am bëgguñu développement bi nga xam ne moom la Sénégal am ndax foofu ci nigeria ñoom ñooy toj pipeline yi pipeline mooy fi pétrole biy jaar ñoom ñoo koy toj di ko taal kon lii dafa niroo ak loolu li ñuy def dafa niroo ak lii moo tax ma ne tey na xel kon nañ ci taxaw nañ ci taxaw bu baax gouvernement bi ak kilifa diine yi pare pour xeex loolu mu jóge fi ndax dugal nañ ko ci bopp xale yi ba xale yi gëm loolu te loolu du amal réew mi benn njëriñ ndax réew mi dañ koo tabax maam yi dañ koo tabax kilifa yi tabax ko ci xam-xam ci njub ci diine ci développement ci lépp bañ toll fii bañ di ñu am yaakaar ba pétrole génn ba gaz génn ba leneen génn kon buñ seetaan ñeneen ñëw di ko yàq mbir mi daal tey na xel moo tax ñu ne danañ ci def suñu jàngat bu baax wax ne na gouvernement bi taxaw ci lii nañ ci taxaw Nigéria dem nañ ba képp ku dagg pipeline atte krim lañ lay atte rey la loolu loolu jërul sax masla loolu jërul sax maslaa ndax loolu rey peuple la loolu baaxul loolu baaxul dagg ndox dagg courant taal université loolu réew de desutu fa te loolu moom lañ gis ci mois de juin bi kon dañ koy ñaawlu bu baax feebar ñaawlu yem di wax ne nag ñun pare nañ pour pour euh, créer benn kuréel bu ñu ko yoon mayee ñu def marche dem ci préfet dem ci gouverneur wax ñu dem ci ambassade yi ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di saaga sëriñ si di saaga suñu kilifa yi ñu arrêté leen ñu arrêté leen dagg seen message yi dagg seen yoon yi ñuy jaar di dugal saaga yi fii ci réew réew mi ñun dinañ xeex loolu danañ fexe benn kuréel boo xam ne bu ñu ko yoon mayee ñu am autorisation danañ mars xeex ñii saaga sëriñ si ak ñii xas sëriñ si ndax ñun ñooñu rek lañ am ñooñu ñooñu tabaxal réew mi ñooñu ñoo fi nekk ñoo yore réew mi ñoo yor kaaraange réew mi kon ku leen di saaga wala nga leen di doyodal ñun danañ taxaw pour xeex loolu. ñun ñu ngi bokk ci mouvement présidentiel ànd ak euh, Macky Sall ba léegi. na leer nag ñun mooy sunu candidat mooy sunu candidat président Macky Sall mooy sunu candidat 2024 mooy sunu candidat tey mooy sunu candidat ëllëg su demee nag xamaguñ lu muy wax nee na dina wax xamaguñ lu muy wax bu demee nag ba mu neex ko mu ne dafa bëgg a bàyyi bu boobaa ñin danañ tànn Pape bi tey mu nekk suñu candidat présidentiel gannaaw Macky Sall daal Pape Demba Bitèye mooy suñu plan B mu leer ñun waa Kaolack ak crème Pape Demba Bitèye mooy suñu plan B lii nag ci man la jógee man la engagé man El Hadj Omar Kouta responsable Medina Baye man la engagé Macky Sall mooy sunu candidat tey mooy sunu candidat ëllëg waaye plan B bi moom su fekkee ne moom dem na ba ni du dem président bi tey wala ku ñu Macky Sall joxoñ ku ñu doy ñu ànd ak moom président Macky Sall kum ñu joxoñ ku ñu doy ñu ànd ak moom loolu daal moom lañ mën a wax ci li nga xam ne moo jublu si muy présidentielle 2024 loolu dañ koy ñaawlu lool dañ koy ñaawlu ndax ñun sunu maam yi ci tarixa lañ judd sunu baay yi ci tarixa lañ judd moom lañ xam moom lañu am moom la ñuy dund kon képp ku ko def dañ koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem te di wax ne nag ku képp ku ko def na ko tuub boo ko tuubul du baax ci yow gis nga euh, saaga wàllu day alag réew mën naa alag àdduna xas wàllu mën naa alag àdduna ndax ña ko daan def Nigéria dañoo xaw a am sens dañ fa fekk ay muqaddam tariqa tijaan yu mag yu am xam-xam ñi xeex ak ñoom ci baatin ci zaahir ak ci baatin ba léegi sax xaw nañ leen a not ba léegi xaw nañ leen a not mais ñoom ñëpp dañoo alaku ndax saaga yi ñu daan saaga kilifa yi moo tax baaxul yal nañ ci yàlla musal baaxul ci réew baaxul ci àdduna bi ñoom lañ am ci yonent bi ba léegi ñoom ñoo fi nekk ñoo tabax àdduna bi ñoo tabax diine ji kon képp ku leen kuy wax ci ñoom na nga wax ci ñoom lu rafet jërëjëf